aywa miroir régional dañuy dem foofu ci diwaanu Njàmbur ak euh, euh, saison bi nee ñu waa Njàmbur de Louga daal euh, seen championnat ren bi yombul lool moo ne day nee ñu ki jiite boobulee kuréel def na ci kim kàttanam waaye xaw tuur sax ñu wàcc loolu nag tax na ba daal ñu ne fi mu ne nii faw ñu bokk ab jotaay xool lan lañu ñu war a seppi mu ñuul ci soow mi ndax lëggéey ba gën a jëm kanam foofee ci diwaanu Louga la ki fa toggal télévision Futurs média Thierno Fall lay championnat bu ren bi nekkoon na lu metti lool waaye itam jafe lool ci njàmbur bu Louga bi nga xamee ni waxuma la sax yegg ci objectif yi ñu amoon ca ndoorteel la waaye xaw tuuti rek équipe bi wàcc deuxième division. parce que en tout cas on nous avait proposé en début de saison benn effectif bu nga xam ni on avait bon espoir mais malheureusement ak des blessures ak je ne sais on n'a pas réussi indi benn équipe bu nga xam ni def na trois matchs de suite. Euh, mu mu indi nu vraiment ay problème yi nga xam ne xamul fu nga xee saison bi boofu am na yu baax am na yu bon Ndiambour a perdu ses matchs li match yu bëri à domicile yi mu perte fii wala yi mu ko def man ni match ni laa jàpp ni daf ko perte fii quoi point yi perte fii moo bari moo ñu yóbbee situation bi lépp bokk na si muy loo xam ni lu metti la woon quand même ci équipe bi ak supporters yeeg waa Louga yëpp parce que benn sant aussi euh, kenn toogatul taxawatul parce que l' na marché marchait pas l' euh, en tout cas amoon na euh, problème yu bari yoo xamante ni amoon na ci biir équipe bi en tout cas nee nañ def na recrutement bu baax def na def nañ def nañ le président am na yu muy joxe ci équipe bi équipe bi en tout cas manqué wuñ dara mais loolu lépp gisuñu ko ci résultat. ci njeexanteelu saison bi mboolem supporters yi ak dirigeants yi ci ab nen lañu toogoon ndax ñépp foogoon nañ ni équipe bi dana wàcc deuxième division waaye nag ci ci paa ndaw la mujj nañu des ci Ligue 1 bi. wàcc rek lañ doon tiit wàcc lañ doon tiit parce nekkoon nañ situation bu délicat boo xamante bu doy boo xamante ne si tey jii. suñ match gore am na lu mu ci joué mais jeexul woon mu ngi jeexee ci Mbour. waaw kontaan rek kontaan trop parce que tamit métti woon na ci ñun te y a un moment donné dañoo wéetoon trop wéetoon nañ trop ci combat bi mais yàlla def na yàlla suturaal ñu ba nga xam ne resté nañ dans la Ligue 1. Euh, supporters yi bien que bëgg ñu bëgg seen équipe la mais à un certain moment euh, xaw na nu gis seen bopp les certains dirigeants se sont désolidarisés donc il restait que tuuti nit pour mën a continuer la affaire bi. donc c' était vraiment difficile année bi moom de grâce nañu dimbali rek ba bii façon année bu mu amati jafe-jafe yi nga xamee ni si Njàmbur bu Louga dund na ko ren ji malgré moyens yi ñu dugal ci équipe bi jot na ñu toogaat càmbar ko xoolaat ba xam lu ko wundu loolu mooy xalaatu ñenn ci Njàmbur Njàmbur yi. parce que boo amee euh, xëy na euh, recrutement bu baax dem ci sous région bi jëli ay joueurs Guinée Gambie fépp ci àdduna euh, bi nga jël fa ay joueurs ci Afrique. war ngaa mën a am au moins bokk ci cinq premiers ci championnat bi mais Ndiambour mënatul loolu ak tout l'argent bi nañ ni ren ren ji championnat bi ci Njàmbur euh, échec la. liñ ci gis nag ñun moom mooy problème d' environnement la. li wër équipe bi moo xaw a polier tuuti parce que dafa am ay yoo xam ne ñoo wër Njàmbur ce sont des rivaux ñoom ñaar dañuy dañuy xëccoo peut-être li di wax noonu bu ñii gas ñii suul je crois que bari rek mais coo euh, kii du am kàmb du fa am. donc loolu moo xew ci Njàmbur actuellement et je crois qu'il est temps président bi bu saison bi jeexee sauver la situation tous les fils de luga toutes les filles de Louga donc se réunissent autour d'une table pour jéem au moins waxtaan pour mën mën a trouver la bonne formule parce que je sais que Njàmbur a une bonne équipe mais la Njàmbur a gagner donc loolu également il faut ñu jàngat ko. am sax ñu jàpp ni bu ñu bëggee Njàmbur baaxaat faaw ñu changer équipe bi ko jiitee. foo ko ñu waxante dëgg ñun waa luga nit bu yoree benn mbir doxul pendant des années kenn dàqu la il faut avoir le courage nga yi kat jéem naa. mënuma ma jox leen loolu yàgg na si àdduna quoi nit boo jéemee tële dangay bàyyi delloo jox ñi la joxoon nga jox leen ñu defaraat mais mun noo concevoir cinq années di tegaloo yëpp njàmbur situation lay dund dafa metti si football bi. bon ñi fi nekk seen mandat dafay jeex je pense pas que Moustapha Diop président Ndiambour ñaanaat beneen beneen mandat est-ce que bu ko ñaaraatee population de luga danoon ko ko joxaat euh, xëy na euh, c'est des questionnements yoo xamante ni bari na mais quand même euh, defe naa ni. Euh, l'erreur est source d'apprentissage booy juum ci ngay jàngate te jàpp naa ni mandat bii di ñëwaat muy euh, saison bii di ñëw beneen euh, équipe moo fi war a nekk te équipe boobu fi war a nekk également war nañ xool ñan lay doon. waaye loolu yëpp lu ci mën a am kii di coordinateur yu Njàmbur moom jàpp nañ ni lépp lu ñu waroon a def ngir équipe bi jëm ca kanam ñoom def nañu ko. remercier suma ay joueurs remercier dirigeants yi xam si ñoom équipe bi yëpp mais defal spéciale président Moustapha Diop. parce que moom ni ma ko waxee bi mu yoree ci ba léegi lépp loo xam si équipe bi war na ko am ci jumtukaay ak ci wuti ay joueurs pour ñuy joure yi nekk ay joueurs yu performant taxaw na ci def na ci def na ci ba lu kawee njortu entraîneurs yi ak ñu nga xam si ñu lu ko dénk ñu ngi koy remercier encore ci confiance boobu. Ndiambour mi ngi tëjee championnat ren bi ci fukki defet ak benn juróom-ñaari victoire fukki nul ak benn am nak lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay points classement wam nekk dixième. aywa euh, njàmbur bu Louga euh, heureusement wàccul euh, mais amoon nañu ay jafe-jafe quand même Cheikh Tidiane. waaw amoon nañu ay jafe-jafe je pense que changé nañu entraîneur ci biir saison bi ci. nan deux dernières journées yi la ñu door assurer seen maintien mhm. parce qu'à la fin ils ont fini à la dixième place mais bon ça a été très très difficile mais mhm. comme ni mu ko waxee tamit depuis commencé wul tey commencé wul tey saison yi passé à chaque fois dañuy flirter zone relégation bi mais à la fin dañuy dem mais euh, je pense que ñoom ils en sont conscients parce que ñu ngiy wax ni yëf yi mënul wéyee nii foofu ñu changer sinon euh, sooy yàgg di flirter ak zone relégation boobu mm-hmm. bés dina ñëw euh, forcément da ngay wàcc comme ni ko Linguère de Saint-Louis defee Linguère sax dellu si waat na mm-hmm. mais comme ni mu ko waxee euh, équipe moyen la laaj fi mu nekk nii si président bi bon mm-hmm. xam nañ ni il est dans plusieurs choses ministre la autorité politique la. ni le mooy dëkk bi bon est-ce que tamit li war. am na jot club waaw li war ci équipe bi yëpp mi ngi koy def te moi je pense que si problème tamit mooy équipe bi dafa soxla organisation boo xamee ni. ki nga xamee ni moo ko jiitee même su amul jot bi euh, du entraver fonctionnement club bi mais su nekkee ci club yoo xamee ni ay politiciens ñoo koy gérer. Mm-hmm. comme ni mu fi demoon ci ay jamono Guédiawaye ak Malick Gakou nga xamee ni Malick Gakou moom décidé génn bàyyi équipe bi rek après équipe dafa effondré wu carrément mm-hmm. euh, genre club yi tamit euh, loolu moom mooy problème bi mm-hmm. moo tax xam naa ni foog ñu gën a organiser wu population tamit jàpp si te surtout yooyu moo gën a yomb ko ay club de région région lañ dëkk bi ñoom ñoo ko moomal seen bopp te moom rek la am parce que moom mooy gën a neex euh, régler. très bien et puis ils ont l'avantage aussi contrairement au club de Dakar à part fii les académies am seen stade boobu gis nga ko noonu stade euh, bu baax la ñu yore donc boo xamante ni ñoom mën am na fu ñuy entraîner amun obstacle yooyu. Mhm. parce que li des comme Diaw ni mu ko waxee moom mooy management bi. te foofu la gars yi war a gën a góorgóorlu. Mhm. pour euh, njàmbur bañ a di wàcc wax nañ nga nekk ci pouvoir bi bu daanoo parce que jamonoy Mañang Faye aussi c'était la même chose qui a mhm. été maire de Louga Gaston mi ñuy wax ni di di war ko fay recevoir nekkoon na président club ba xam naa bu ñëwee dana ci mos tuuti ma lay wax ne kon c'est un club euh, qui a besoin vraiment de soutien. Mm-hmm. pour muy jouer quand même premier rôle dans cette euh, partie surtout saison bi. Euh, ndax boo xoolee sax région de Louga boobu ñuy wax yëpp de manière générale ASC Ndiambour rek moo fay équipe boo xamante ni yaa ngi joué. Mm-hmm. en Ligue parce que daara seen club bi wàcc na benn yoon na mës a yeeg Linguère aussi ASC mm-hmm. Jolof ñi ngi la même chose donc je pense que loolu rek war na mën a tax quand même ñu représente dignement maanaam amoon na ci poids ci ay jamono ci championnat bi nekkoon fi mm. club yu mm. gën a dëgër sax mm. euh, jamono yam Baye Ibra Touré je pense euh, nekkoon sax international mais bon ça c' était la vieille vieille époque nekk ni nag euh, laaj nañu gën liggéeyaat surtout aussi di former parce que formation bi moom rek lañ fa lañu mën a jaaree pour kii bu yaakaar ni club comme ay génération foot jàmbaar yi rek ñoom ñoo war a former mm-hmm. mais club traditionnel yooyu tamit dañoo am wàll ci formation te formation boobu moom mooy tax ñu am ay joueurs de qualité mm-hmm. mën leen jaay sax sax gën a yokk seen i koom. seen i koom man mm-hmm. li ma ci yokk rek mooy ñamur ko wax nga ko euh, ay je pense que euh, ci début championnat bi nekkoon nañ ci cinq premières équipes yi à un instant donné c'est-à-dire xëy na euh, bu fekkee ni wàllu organisation gën nañ ko taxawal nga xam te ni parce que ñamur ñàkkul ay joueurs yaa ngi dégg ci reportage bi 11 défaites. onze match nul ak nga xam te ni euh, moom moo di sept victoire euh, mm. club boobu boo ko amee nga nga nga fexe ba maintenir mm. ci li nga xam te ni moo di euh, Ligue 1 bi man pour man war nga def ay jéego rek xëy na peut-être seen président certes new fa waaye mën na délégué mais xëy na ca ka ngay délégué bu fekkee xam na na football di doxee mm. war na mën a joyanti club bi ba ñàmbu delluwaat ci li nga xam te ni moom mooy premier rôle li mu doon joué ci Ligue 1 parce que lui aussi loolu mi ngi équipe bi mënoo ko topp tous les jours mais bu doon si vous pas au match wala nangam aussi parce que loolu baax na ci management sport mais il est président kay da ànd ak soit mënoo chaque jour nga ànd ak club mais club yu mag yëpp yi ñuy wax yi président bu ñu déplacé day ànd ak jour di xam seen i jafe-jafe xam problème du rek comme ni ni ngay vivre comme ça signature comme ça maire maire boo xamante doo fa nekk day délégué signature c'est pas xam li xew. c'est ça munoo délégué aussi di bàyyi noonu. c'est ça bu ko waa Njàmbur nangoo nag donc il faut fal. comme élection je ci nopp utal soo di waxee dama am nga ci wàll jolof nga dëkk tamit sama région. li ñu doon waxal démb rek nag Chérif. xam naa ni bët ki dem lëndi ba matul war nañ koo càmbaraat ak ci doy nga waar jërëjëf euh, Thierno Fall euh, nekk sunu euh, correspondant foofu ci diwaanu Njàmbu Lougaloo ak li ko wër ñu jaajëfal ko bu baax jàll ci société ànd ci ak ndonguka